bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam subhaanaka laa cilma lana illa ma callamtana innaka anta al alimu alhakim allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bima callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacda ma amaatana wa ilayhi nushur assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu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 julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam sant buur yàlla tabaraka wa taala moom mi ñu may ñu fekkee fanaanuk jàmm moom mi ñu may ñu fanaan ci jàmm ak salaam ñoo ngi talal suñu yoxo di ko ñaan yal nañu yàlla may kendaluk jàmm amin ya rabbal alamin ñi ko ñaan yàlla buur bi tabaraka wa taala yal nañu yàlla may ñu dugg ci semaine bi tàmbalee ko ci bismillahi ñu di ko ñaan moom buur bi tabaraka wa taala mu may ñu ñu jeexalee ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ñaanoon nañ ko ko defal nañ ñu ko ñu di ko tàllal loxo bi léegi di ko ñaan yàlla nañu nangul lépp lañ ko jaamu ñu ko ñaan bi léegi moom mi boroom xéwal di boroom yërmande yal nañu yàlla jéggal yal na yàlla yërëm way dawlu ñi amin ya rabbal alamin yi xam ngeen ne waxtaanu suba su waxtu wi dinañu ànd ak way déglu ñi ñay bàyyi xel ci rajo bi ci waxtu wi ñuy wittalanteeg ñoom la nga xamante ne mooy la suñu mbiru diine ëmb yéena ngi fàttaleku ñu ngi yemoon ak yéen ci ngéneel ba nekk ci la nga xamante ne mooy la suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon joxoñ lenn ci ngineel ba nekk ci yow mi yàlla dénk tu tànk mu doon takkandeer ci sa dund mu doon ki la fi war a wuutu la fi wara a doon buur yàlla tabaraka wa taala la ko mu may la ko mu doon kiñ lay xoolee ci dund bi kon kooku la yàlla may mu doon tuut tànk mu doon gone mu doon sa takkandeer mu doon sa doom buur yàlla tabaraka wa taala mu di ñu wax ci alquraanul karim ci ay saar yu fasante ko wa wassayna al insaana bi waalidayhi nee man yàlla maay ki dénk doomu aadama ñaari wuyjur yi mu tegsi ne xamalatuhu ummuhu waxnan ala waxnin ma wuulu ci yaay yaay bi daldi ko ëmb ci coono ci kaw coono coono ci kaw coono nañ ko war a mën ak nañ ko war a gëmee kenn ku nekk si ñun xam na ne ah képp ku yàlla natoo nga di jigéen ju won won lor xamal ne melokaan kooku di mel noonu la ko yàlla di baaxe yow doomu aadama bi pour nga xamee ko nii buur yàlla tabaraka wa taala jaar ak doomu aadama bi ci béréb yi nga xamante ne wala ci anam yi nga xamante ne keneen ku moom xamu ko keneen ku moom du ko mun a nettali du ko mun a leeral kom na ko buru yàlla leeralee subhaanahu wa taala ndax moom dong moom rek képp kott dong mooy ki xam fa mu jaar doomu aadama ba mu ganise àddina kon diggéem moom rekk ko xam moom dong moo xam la xew ak nu mu demee kon moom buur yàlla tabaraka wa bu ñu ko nettalee ni nii laa jaar doomu aadama ba keroog mu gane si àddina ñu war ko war a mën a gëm ba tax na mbokk yi ñu ngi leen di fàttali ne ñu ngi si vacances buñ ne vacances nag ñu ne waxtu ba nga xamante ni cala la ndongo yi di noppale ko moo xam yow yóbbu sa doom ci école nasaraan ca lay noppale ko waxtu wi ñu nekk ni moo xam yow mi jóobu sa doom ci école arabe waxtu wii lay noppale ko waaye nag bu ko bàyyi mu noppale ko ba noppale ko bi jéggi dayo waaye da rafet da si baax nga jël sa doom yóbbu ko ci école ba nga xamante ne falay fortaatoo lépp lu aju ci diinem moo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne ci maana xadis nañu kullu mawlud yuwlad alal fitra képp ku gane si àddina dafa gane ci àddina ak leeru yàlla buñ ne leeru yàlla nag ñu ne mooy leeru wiitalu yàlla buur bi tabaraka wa taala ba raxul dara ba dara raxul tamit waaye yonentu bi nee na ñaari wuy juri koy yar di ko tette nee na ñooñu de ñoo nekk di sàggane ci moom bi leeru yàlla boobu daal di waaye ñooy sàggane ci moom ba nasaraan bi jël ko def ko nasaara waaye ñaari wuyjur yooyu ñooy sàggane ci doomu aadama boobu ba alyahuud jóge ko ci làng daldi ñëw jël xal bi def ko alyahuud def ko juif waaye yonentu bi nee na képp ku génn si àddina day génn si ak leeru yàlla moo tax mu ne kullu mawlidin yuuladu ala abawaahu yu xawwidaanihi aw yu nasaraanihi aw yu majjusaanihi nee na képp ku ganese àddina képp koo xamante ne ganese na àddina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jëmm jooju de daa ganese àddina ak leeru yàlla waaye ñaari wuy jur yi ya ko ñoom ñaar ñooy sàggane ci moom ba mu doon nasaara waaye ñoy góor-góorlu ci moom ba mu ànd ak leeru yàlla boobu waaye bu ñu sàgganee càggante bi toll ni ñu bàyyi ko sagom yahud bi mooy ñëw jël ko def ko juif waaye nasaraan bi mooy ñëw jël mu def ko nasaara moo suñu alquran ba ñu yore di ko jàng aqu doom ci baay bokkon na ci ci suuratu shura lañu fa yàlla wax buur bi tabaraka wa kon képp koo xamante ne yaa ngi bàyyi xel sa doom na muy duggee na muy génne ña muy àndal ci yan lieu lay fréquenté ak ci an milieu ana ci wan milieu lay frekante ñan lay jaxasool ñan lay àndal naka lay comporté wo comportement bi ba xam dëppoo na ak njàngale yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam wala dafa juwaanloo ak njàngale yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku xam question ya ñu posé nii nang ñu may noppu ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji ci waxtu wi su ko defee ñu xool naka la suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe formation bu toll ni yow doomu aadama ma yalla dénk la nga xamante ne mooy doom noo ko yare ba xam delloo nga yàlla njukkal moom mi la ko wërsëgal moo tax buñ demee xool ca suuratu shura ñoo ngi gis ci yàlla buur bi tabaraka ci aaya 36 mu ngi ñuy wax ne lillahi mulku samawati wal ard yaxluqu maa yasha yàlla mooy buur ba yore nguuru juróom ñaari asamaan ci moomelam lañu nekk nguuru juróom-ñaari suuf ci nguuram la nekk ci loxoom lañu nekk mooy bind lu ko soob mu ne ñu yaxabu liman inaasan moom yàlla mooy mee ku doom yu jigéen wa yaxabu liman yashaau zukuran moom yàlla mooy may ku ay doom yu góor rekk aw yuzawijuhum zukraanan wa inaasan moom yàlla mooy may képp ku ko soob ay góor ak ay jigéen mu mélanger la ko waaw wa yajcalu man yashaau aqima moom yàlla buur bi tabaraka wa taala mooy def ki ko soob mu bañ a am doom ñeenti programme yam la tëralal ñeenti melokaan yam la junjël ci aaya bi nii mu daldi la ci tegal mu ne la innahu naka moom yàlla alimun ki xam lu mu jëf la nii mu la wax ni qadir ki am kattan la pour mu defee ko ni lim la ne mooy may ki ko soob ay doom yu jigéen kese du ci boole góor yàlla nee na ki ko xam la la tax ma def ko ki ko man la tamit moo tax ma def ko yàlla daf la ne moy bind lu ko soob ki xam la tax mu wax la ko way ki ko mën a def la tamit la tax mu ne la moy may ki ko soob ay doom yu góor kese du si booleeg jigéen innahu alimun qadir moom yàlla ki ki xam la tax mu def ko ki ko mën na def la tamit boo gisee mu ne la mooy def ki ko soob mu baña am doom ñàkk am doom jaamam jooju innahu alimun moom yàlla ki xam la tax mu bañ a may jaam jooju doom ki ko xam la xadiir te ki ko mën a def la tamit kon la yàlla def mooy la ko soob moo xam la tax mu def ko moo xam te moo mën a def loole kon bu ne la wa wasaynal insaana bi walidayhi man yàlla maa dénk doomu aadama ñaari wuyjur wi kon ñaari wuyjur wi dafa war a xam ne responsabilité bi mu am ci doomam mooy mu yar ko jàngal ko ndax jaar-jaar wi dafa sore jaar-jaar wi dafa critique te dafa xaw a doy waar moo tax yàlla ne wa wasaynaa al insaana ñun yàlla ñoo dénk doomu aadama ñaari wuy ñu nekk nit ni moom ñu doon nit ni moom doomu aadama bi ñaari wuy jur yooyu kii di yaay kii di pàpp ñu doon nit ni moom waaw yàlla ne ixsaanan nañu rafetal jëmale ko ñaari wayjur yi moo tax mu ne wa wasaynal insaana bi walidayhi ihsaana man yàlla ma dénk doomu aadama bi ñaari wayjur ngir mu war a rafetal jëmale ko ci ñoom ñaar bu dee gone yaa ngi rafetal jëmale ci wayjur yi bu dee waaw alhamdulillah bu dee déet nañu xool aaya bi ñu géem ko installé suñu digganteeg suñu tu tànk yi xamalatuhu ummuhu kurhan wa wadaatuhu kurhan yàlla nee na yaay ji laa wóolu ci ëmb bi ak ci yenn bi ndax bu koy def da koy tàmbale ci coono buy tàqale ko ëmb bi day tàqale ko moom ci coono wa xamluhu wa fitaaluhu salaasuuna shahran yàlla nee na ëmb beeg nampal beeg feral bi yëpp boo ko doon boole di ko calculer di ko géem a cumuler da jox trente mois fanweeru weer la lay jox yàlla nee na xatta ida balaga ashuddahu wa balaga arbaina sana xale boobu bu demee ba toll ci diggi doolem mu tollu ci diggu jànq bu dee xale bu jigéen yàlla ne kay déglu comportement yama bëgg nga comporté woo ko yàgg sa ñaari waajur yi bu dee xale bu góor la kaay yàlla nee na daa bëgg nga comporté woo jëmale ko sa ñaari waajur yi gannaaw bi nga nekkee ci sa diggi doole moo xam yoo xale bu jigéen la moo xam yoo xale bu góor nga gannaaw bi nga amee karanta ans yàlla nee na xaala wax ne xaala kooku dafa war a wax mu ne rabbi sama borom awzini maa ngi lay ñaan yàlla nga ma tàggatal an ashkura ni'mataka allati an amta alayya yàlla nga ma wërsëgal nga jàppandalal ma nga yaatalal ma nga tànn ma ma doon ci ñi nga xamante ni dañuy sant sa xéewal ya nga xéewaleel sa jaam yooyu yàlla may ma ma sant sa xéewal ya mu xéewalal ci tànn bi nga ma tànnal ñaari wuyjur yi nga xamante ne dañ ma tettee ci diini islaam yar ma ci yoonu njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yàlla may ma ma sant la ci lang ma def ci xeetu seydina muhammad yàlla def ma ci sa jaam yi nga xamante ne dañ lay sant sant boo xamante ne ah macha allah tànnal nga ma baay ju baax tànnal ma yaay ju baax ñu meññ ma jur ma ci yoon wu baax yoon wu baax boobu noonu moo déppoog sa njàngale yenentu bi yàlla nga ma boole ci ñii sant sa xéewal yangaleen xéewal xéewal jumel nii wa ala waaliday ma delloo njukkal sama ñaari waajur yi yàlla may ma ba léegi wa an amala saalihan ma doon si ci jëfkatu ñu baax ñi ma bañ a doon ñuy tuur deret ma bañ doon ñuy làqu di nangu yëfu nit ñi yalla ma ngi lay ñaan yàlla nga ma soril ci anam woowee yàlla nga ma def si ñi nga xamante ne bu ñu déggee noddu dañuy waajalal seen bopp yàlla nga ma def ñi nga xamante dañuy yërëm ki ñu ëpp doole dañuy yërëm ña leen ci suuf lépp lu ñu am ci lu baax dañ koy nangoo partager moo xam am am la moo xam xam-xam la moo xam lépp lu mu munti doon lang leen wërsëgal mu bare ka néew dañ koy nangoo séddale ak ñàkk soxla yàlla nga ma boole ci kuréel ñooñee waaw tordaax mu doon jëf ji nga xamante ne danga koy gërëm yow yàlla waslih lii a ah, maa lay ñaan nag yàlla fii zurriyati nga may ma njoboot ju baax ma nit bu may denc soxna yàlla nga ma tànnal ma gisantik soxna su baax yàlla nga ma ci may ci soxna suusu njoboot ju baax kon yàlla maa lay ñaan yàlla nga ma may soxna su baax inni tubtu ilayka man doon naa ku jébbal sama lépp fa yow yàlla waaw inni man tubtu ilayka ah tuub naa samay bàkkaar yama jëf ci samay cër yàlla nga ma nangul sama tuub wi ma tuub tuub naa jëmale ko ci yow yàlla yàlla nga nangul sama tuub ci bàkkaar yama jëflante jëmale ko sama ñaari way jëre wa inni man yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga ma boole minal muslimin ñu jébbal seen lépp fa yow yàlla yàlla nga ma boole ci ña nga xamante ni jël nañ seen xol ak seen xel ak seeni cër ak seen pas-pas yëpp ñu jébbal ko fa yow yàlla duma ma jébbal ci kenn du ma jébbal feneen du ma jébbal ci lenn lu dul ci yow yàlla yàlla nga ma boole ci kuréel yooyu amin ya rabbal alamin mbokk yi bu ñu naree def commentaire taaliqaat bu ndaw ci aaya bi dinañ gis ne kii deeloon na yàlla njukkal sant na yàlla waaye delloo na njukkal ci ñaari wuy juróom yi ndaxam dañ ka tette waaw dañ ka tette tette ko tette bi nga xamante ne ci lay gis boppam kon képp ku bëgg sa doom lamboo jikko ba ñu alquran rëddal ni aaya ba ñu doon waxtaani ni ca suratul ahqaaf kon nanga nga géem góor góorlu teg sa yoon sa doom teg ko ci yoon bi nga xamante ne mooy siraatullahi almustaqim xanaa du ñàkk boo ko jàngalee alquran fukki suuraat yu mujj yi boo ko tàmbalee ci alamtara kayfa faala rabbuka bi asaabil fiil ba keroog mooy àgg ci qul auzu bi rabbin naas dina mokkal fukki suuraat yi suuraat yi boo ko tàmbalee ci fatiha yu mel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 وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول mbokk yi lii mooy njëlbeenu fukki saar ya nekk ci alquraan alam tara kayfa faala bi ashaabil fiil tu tànk bi jàng loolu mu mokkal ko ëllëg sa mu ñëw mu jàng saar bu ci topp gannaaw ëllëg sa mu ñëw jàng beneen ñetteelu saar ba topp ci ñaareelu saar bu ko jàppee noonu du ñàkk balaa vacances bi di jeex dina mokkal fukki saar yu mujj yi ci alquran su ko defee loolu mu doon delloo njukkal bi nga xamante ne delloo nga njukkal yàlla wala sant nga yàlla ci lam la doom yu góor walla doom bu jigéen mbokk yi nañ leen dem xool ci yarinu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam na mu yare lenn ci ñi nga xamante ne ñooy saxaabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain mu daal ñu wax ne la nga xamante ne mooy melokaan bu mucc ayib melokaan boo xamante ne képp ku ko meloo macha allah du ñàkk sa dundin dina doon dund ju mucc ayib kon nañ leen géema xool na yonentu bi jàngale fii sallallahu alayhi wa sallam ñu bokk déglu min aadabi taam na yenentu bi jàngale naka la jullit wara mën a jëfandikoo la nga xamante ne mooy xéewal ba ko yàlla wërsëgal mu nar ko xiiwalu ñu ne yenentu bi sallallahu alayhi wa sallam xuslu yadayni qabla taam da doon raxas ñaari loxom laata muy jëfandikoo ñam ba mu war a jëfandikoo waaw doon raxas seen ñaari loxo lu jiitu ñuy jëfandikoo ñam jooju su ko defee li yatafaadi ma qad yakunu alayhima min awsaax ngir deñ ngir mu setal waaw li yatafadda ma qad yakunu alayhima min al awsaax ngir muy raxas bi ñaari loxo yi set ci tilim tilim ya taxoon ci loxo yooyu loolu benn la yonent raxas ñaari loxoom ngir mu setal ñaari loxoom ci bépp tilim tilim lépp lu taxoon ci loxoom ndegem moom loxoom sax daawul tilim daawul salte waaye njàngale la bi nga xamante ni formation ba mu doon formé sahabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain bindikat yi bindikoo ci comportement yeneen bi salaa ndax moom lañu yàlla royloo moo tax mu ne da doon raxas ñaari loxoom ngir tilim ya nekk ci loxo wi daldi deñ bu ci noppee ñaareel bi mooy du'a bi barakatin da doon ñaan yàlla defal ko barke ci ñam jooju muy waaji xéewalu ñëw na ci li xadiis an li xadiis min at'amahu allahu taaman falyaqul allahumma baarik lana fiihi wa at'amana xayra minhu rawahu tirmisiy wa xassanahu albani nee ñaan bi nga xamante ni na ci bi doon ñaan yàlla mu defal ko barke ci ñam boobu mu jëfandikoo donte ñam bi tuuti na comme ci kanam tuuti dinañu waaj a jëfandikoo ndékki kon nañ leen jël njàngale yonent bi installé ko suñu kër xale yi di ko jëfandikoo lu jiitu ñuy génn di dem fa nga xamante ne mooy yeneen béréb yi ñuy jëfandikoo ñoom añ walla ndékki nañ leen raxas suñu loxo bit salte bi deñ su ko defee ñu jàngal leen ci ñaan bi nga xamante ne moom la yonentu bi jàngale lu jiitu nit ki di lekk mooy min man ataamahu llahu taaman képp ku yàlla wërsëgal nga am la ngay jëfandikoo ci xeetu xéewal mooy ñam fal yaqul yonentu bi ne na nga wax ne allahumma buur yàlla baarik lana fiihi yàlla nga ma defal barke ci lang ma xéewalal nii ci ñam bi may waaje jëfandikoo nii wa atamana xayran minhu yàlla nga def la ma ciy lekk mu doon yiw mu doon lu barke yow bool bi nga tiim nga di ko jëfandikoo bul defee ne ñam bi mooy feesal sa biir naam ñam bi mooy feesal sa biir waaye yal na fekk barke nekk ci ñam woowu yiw nekk ci waaw ndax léegi-léegi am na koy tàmbale lekk di ko jeexal problème daal di dikk kon yow xamoo yàlla mi xam yonentu mi ne na ko ñaan ne ko allahumma buur yàlla baarik lana yàlla nga ñu barkel xoolal ñaan bi ñaan nga fi ñaari yiw commencement bi ñaan nga ko barke njeexantal bi ñaan nga ko yiw allahumma buur yàlla baarik lana fiihi yàlla nga ma barkel ci ñam bi waata wa at'amana xayran minhu yàlla nga ma def yàlla nga def ñam bi mu doon yiw ci man hadis bi rawahu tirmizi wa xasanahu albani mbokk yi hadis bi tirmizi moo ko solo albani moo ko wiral waxtaan bi jeexut daa fekk ne rek dañoo yegsi fu ñu war a yëkkatee jotaay bi nara fas yéene jibal bërëb bi ñay joxe xibaar ci nasaraan saa'iliina mawla jalla wa ala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa yattabicuuna axsana allahumma ya rabbi aati nufuusana taqwaaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaaha anta waliyuha wa mawlaaha fa nicmal mawla wa nicmal nasir ñuy sant di gërëm suñu mbokk auditeurs yi nga xamante ne ñu ngi si kër masar ku mel ni Kéba Ndiaye mu ngi kër Massar Parcelles Assainies unité 24 day topp émission bi di ko bàyyi xel ci réew mi TV ak Aliou Cissé moom day bàyyi xel émission bi di ko topp moom it mu ngi kër Massar unité 24. ak euh, Aliou Niang moom it mu ngi ci kër Massar ci Dévois yi ak euh, ki ñu naan Ahmad euh, Diallo moom it mu ngi kër masar ak Serigne Lo. ñoom ñëpp ñu ngi Kër Massar ci eh, deux voies ñu ngi leen di ñaanal yàlla di leen sant di leen gërëm ñu ngi ñaan yàlla suñu boroom lépp lu ñu fi dégg yan nañu ko yàlla man loo ñu mën koo jëfe amin ya rabbal alamin allahumma aminna fi awtaanina waslih a'immatana wa wulaata umurina allahumma ya rabbi ihfad biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan barakallahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafaani llahu wa iyaakum bima fihi min al ayati wa dikri al hakim aqulu ma tasmaun wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu